Situation paradoxale que la nôtre. Un contexte global tellement favorable, riche en minerais de toutes sortes, depuis Mathusalem, sous nos pieds en plus. bi baat bu neex daal di noppi ba faw kàngam ci métier tasub xibaar daal di dem xool bu tooy tiis ak nakar doon lu ñu fi nemmeeku tey ci levée du corps bi mbokk xarit am di jàmm ku ne daal di seede ci ki fi tëdd tey. ñu xam ci moom ay jikko. jikko yooyu la ñu mbokkam yëpp ak xaritam yëpp témoigné. nee na jikkoom yu rafet yooyu moom la ñu fi teew yëpp mbokk yeek xarit yi yëpp témoigné. mooy bëgg liggéeyam. mooy bëgg liggéeyam. maandu teem maandu teem. mbay si di ku baax a ngi nii ku am suturaa ngi nii ku am yar ku amit teggin jabaram ñëw ne ko randul moom jabaram ñu déggoo lool nag. mu nekk koo xam ne kii ku bëggan réewam la ku bëggan Afrique la ku bëggan lu mu doon def la ba pare ànd ceeg yar ànd ceeg teggin euh, doo ko dégg mu ku mu wax lu bon ci nit day rey rek seede yi doon benn mbay Sidi mbay doon ku am fulla ci li mu doon def professionnel amoon jàmm ak ñëpp. muy rajo muy télé muy télé. di presse écrite di presse écrite di réseaux sociaux. di réseaux sociaux loolu la ñu Mbaye jàngaloon. loolu nag mooy li nga xam ni moom la leen Mbaye Sidi jàngaloon. donc c'est une perte. nee na kon day set une perte. ku baax nag ku yaru ku am diine ku respecté doomu aadama ku bëgg ay mbokkam ku bëgg njabootam ku jox ñëpp cee cër. xarañteefam ci métier journalisme. doon lu ñu bari nawloo woon bokk ci ñu ñu doon roy tey daldi nañ ko denc ci sëgg ya ca yoof xanaa rek di ko ñaanal suuf daldi oyof dans l'épanouissement endogène de chaque peuple